asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu taahu habu ya rasaqu ya maliki iftahu habliya warsuqni min kulli aana alayhi asilan ajilan bil bishri ahmadin hatta aqima li dinillahi arkana yusir juuni tuwa wa hamini qini athura tadib bi samaskara qasama wala aradi wa habu biya musharikin ajib سويت من حسن دي محمود قلت حبلي فائق بنا سبحانك ربنا ستقع سبحانك سلام محمد سيدنا والحمد لله آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته okay kon xanaa ñu ñu waxtaane daal waxtaane téegal waxtaane ci ay ay wàll yoo xam ne buñ ko jàllalee mën naa mën naa jëriñ góor ñi jigéen ñi ci dundin wi dundin wi sunu dundin yi ëpp ci noonu sunu alluwo ci yenn yaatuwut rawatina ci diine ci diine leer na lu leer ci noonu bëriwut ma ne ko alhaji Malick Sy radiyallahu taala anhu waxewoon na réew mi li fi ñëw ci ay téere bëriwut li muy néew néew lañ ci jàng gën a néew lañ ci jàng lu mu néew néew lañ ca dégg moo ci gën a néew ci dégg lu mu néew néew lañ ci jëfe moo ci gën a néew kon moom day mel ne kon te loolu it mu waxit ñeneen ñi nga xam ne ñoom seeni alluwa dafa yaatu suñ mbokk ñeneen ñi yenn réew yi seen alluwa yaatu it dégg ga des na dégg ga ak jëfe gi lépp des kon moom day mel ne umar islamiyi bi daal daa mel ne loolu la wala jamono mel noonu ndax ñi nga xam ne ñooy royteef yi ñoo manqué ñoo manqué royteef yi yi xuus ci gël ba ku leen séente mënu caa jaare xam ne dëkk dëkk baa nga ne le ci ci gannaaw gël ba loolu kon kon day mel ne day mel ne jigéen jigéen ak góor jigéen kenn du ko def rek ab bant boo xam ne wala am xar moo xam ne danga koy jëfandikoo mu la soobee jigéen dañoo tedd lool suñu borom teral leen sóoratu nisaa yi am na sóoratu Mariama am sóoratu jigéen ak soxna diw am sóoratu Ibrahima am waaye nag sóoratu rijaal amut nga xam ne kon jigéen kon su borom da koo da koo da koo jox lool daraja ay atteem da koy moo koy tuddal boppam fonk ko lool nga xam ne jigéen mooy sunuy ndey mooy ndey ndey ndey ci wolof mooy ab bool bu nga xam ne ci la leget gi nga xam ne ci lañuy wayale soow moom xam ne bu ko rax bu ko dara raxut rek mu seex lool kon kon kon kon ñooy suñu ndey ñoon ni ngi leen war a toppatoo mooy seen ak ji leen islaam jox ak ñitu jox leen ko mooy def leen ay ay noole ñu nekk ñoo xam ne dañuy noppaloo dañuy noppaloo ñu leen dina noppaloo na ma waxoon ne jigéen jigéen ju baax mooy jigéen joo xam ne day mel ne day garab gu naat garab gu dëll am meññet bañ a am ay dëkk sedd kon dëll gi rek bañ a bañ a am ay dëkk neex xet taroon nga set loolu mooy loolu mooy mandarga ji jigéen ci ci tënk yoo yoo xam ne des na fa mën a noppaloo góor ga it góor ga it jigéen ja di di noppaloo ci moom su borom dafa dafa def góor góor ni mel nga xam ne ab taar su sunalu ko loola moo ca neex jigéen jigéen taar boobu mu yor moo ci neex góor nga xam ne taar bi nag wolof day day tàqale diggante jëkk ak rafet rafet moom ci xoy-xoy la waaye jëkk mooy yëf yi jëkk yëf dafa jëkk jëkk nangam jëkk waxeen doxeen jëkk bind jëkk col loola mooy mooy alxasanu xasan jekk jamaal moom dafa mel ne xoy-xoy bi ngay bi ngay jot la bi sa bët di jëkk jëkk jot loolu rekk la waaye biir ba dëgg mooy alxasan asmaullah alxusna du aljamila waaw loolu lu am solo ñooñu nag nga xam ne soxna yi dañ leen a war a fonk sama baay dara wax naan jigéen de ku ku ko mënoon du togg du fóot du togg du du fóot xam ne kon jigéen buñ ko mënoon sa sa sa sa sa néegu sa néegu bopp bi yow góor gi la la lay lay saytu buñ la dee toggal lu lu lu génn ndën gi ndën mooy mooy ñamu kër gi kër gi buñ la dee beral sas sas sas togg sas sas ciin sas super loola mu di la ko saytul sa sa sa yére rek mu di la ko saytul kon day sa pekke rek mu de mu de ko say saytul kon kon liggéeyam mën naa bañ a bari ngeen la moom mu am ay ay ay saa bajan yu ko koy defal mu leen di jàngal liggéey jàngalaale liggéey ndax ñu bari ci ci jigéen ñoom it jàngaluñu leen liggéey moo tax ñoom it mënuñoo jàngal seen doom liggéey kon kon seen doom ñoo ñoom it buñ tolloo ci dem kër ñoom it duñ xam liggéey góor gi góor gi góor gi dangay gis ko am soxna ci sunu murit gii rek laa koy mën a leeral la murit gi muy dund mën naa am moom laa gën a xam dara ci ñeneen ña waaye nga si am murit xale murit boo xam ne dundam jëpp da koy def ci ay kuréel dem kuréel baag dem cant gaag dem magal ga nga xam ne nga xam ne daanaka daanaka ay bis yëpp am magal ay ay ay bis yëpp am na magal ci at at mi daanaka nga nga bëgg koo magal yëpp ba te te te te magal ga magal yi kuréel yi ak sigut ngénte yi ñëwagut céet yi ñëwagut leen ñëwagut nga bëgg yëpp nag nga nga nga di ko teewee ba sa kër kuréel kuréel bi nga daal di def ne kuréel kat farata la dem ci cant ga farata la dem ci màggaluk sangam nga nga xam ne màggaluk kër sangam la te te sa kër am màggal moom it farata la waaye nag sa kër yow ne ci sa kër teew ci sa kër di farata ju ju mag jo nga fàtte ko yow wala wala xamoo ko wala nga fàtte fàtte la ko ndax li ñuy wax fiqhul awliyaat li gën a li li gën a yee nga ne ca bala ngaa julli bala bala ngaa naafile waxtu timis misaal téeméer rakk nga bëgg koo naafile ci waxtu timis guddi gi mbaa mbaa julli nga ñetti rakk yàlla yi boo ko jullee gudd loo jox yàlla soxlawut li mu soxla ci yow mooy li mu la digal danaa wax ne ba su borom bu waxoon ne ne ne ko dikk ngan ne ko danaa la gana si ma la gana si nag toggal ma ceebu kecax ma ne lu waaje lu lu waaje xër xër na ko toggal ceebu kecax bu noppi soog ko reyal ay gàtt wala nangam nangam kon toppatoo sa toppatoo sa sa sa soxna sa kër loolu mooy farata loolu loolay farata dafa am ca mu tam si Cheikh Deme bi ca Touba bi waxtaan yi tàmbalee nga xam ne waxtaan yi waxtaan yi koor yi wax dëgg taarix boobu moo di waxtaan yi koor yi mi ngi tàmbalee woon ca Darou Khoudoss man mii ma maa ko xalaatoon ñu def ko ca mbaarum Daaru Xudoos ma mooy mooy mbarum boobu li li li waawul xamdi boobu boobu tabax tabaxaguñ ko mbarum jëkk ma ñu def ko fa ñaari yoon ñaari yoon xam naa xam naa wuute xalaat yi xam naa man naa am ñeneen ñu ne xam naa ñu ñu ko far yóbbu yóbbu ñu ëppoon ci ñu ko doon saytu for am kër guñ bokk jaali ko yóbbu ci kër ga dama damaa ñëw rek di ajow na fi ñëw rek gisuma kenn ma laaj laaj ñu ne ma ñëwal ci kër sàngam voilà fa fa la fa la yëfee yem ci sama xam-xam ginnaaw bi nag sëñ Moussa jotara foofa ca foofa foofa foofa ca maktaba ba jàll di di di ko fay tàmbali noonu lay doxe doxee ko suñu Basiiru dara dara mu wax te ko suñu Basiiru daal di ñëw ak ak ak ak yeneen penc yi foofee ca maktab maktab Cheikh Xadim Ba ñu di ci waxtaan am soxna soxna su su laaj ne man day man day damaa topp dayre yi tudd kër ma tudd dayre yi maam jaara yi boo topp topp ba sama kër di bëgg a tas mu tontu ko ne ko maam jaara day moom dafa riigu woon këram waqar na ja dafa riigu woon këram waqar na fii buyutikunna te seen borom digaloon soxna yu tëdd yi neen riigu leen ci kër yi moom di loolu defoon ba ba am lem am kon moom soxna jaara nekkutoon di xalaat yooyu nag wëndeelu fu ne mu dem fa xam ne ko kon soxna soosu kon moom bu bëgg na lu baax lool waaye kon daa xamul yoon wax waaye nag toog fi am na ndax laaj na laaj na laaj na wasalu ahla dikri mën naa am ñu ci xam dara boo leen laajee mu la waxee ne la yoon wi mu dem ci dëkk ba mën naa am ci saxal dale nga nga mën naa am nga dëkk ba danga ko sëndamul nga xam ne kon fiqul awliyaat soxna soosu bëgg na lu baax na nga nekk sa topp yi rek topp ay dayra dayra te te xamul ne te xamul ne maam jaara mi mi mi dayra bay tuddoo ak sell rek ak sell ak topp ndigal yàlla rek ci la nekkoon ba am li li ma am nga xam ne kon jumbul soxna sax mën naa am bu xasee xam ne maam jaara moom fii la jaaroon rek mën naa am dana ci jéem xam ne kon ñooñu di di wër nga xam ne seeni soxna amuñu amuñu seenu jot ña nga ca ña nga ca dayira yi ña nga ca ña nga ca kuréel yi ña nga ca cant yi ña nga ca màggal ya ña nga ca ngént ya ña nga ca ciit ya ña nga ca ña nga ca ña nga ca jumbut amuñu référence delluwaay buñ buñ naan kat buñ ca delloo danañ xam ba xam lii ñu ne lu gën la wala gënut ndax mën naa mën naa baax sax waaye yo bu tasee beneen baax duutu baax fekk baax googu jiitut noonu waxoon ci jullit tamit rek ñetti rakk yi boobu gën a naafil la ginnaaw timis lay doon kon jëm kaw boo defoon ñetti rakk yi loo loo naafil la sa borom bëggut ndax lim la digal rek rek la wax ne moom moom la bëgg ci yéen loolu la ca des na moom yaa koy coobare ginnaaw ba ba lay doon ñetti rakk yooyu su borom moo ko côté xam na nga ko bëggee yow si sa téeméer ci rakk kooku yow xamoo dara ca secret secret kon yow boo dee nit a da ngay jiital ñe- ñetti rakk yi ba noppi boo amee jot nag nga def ci sa téeméer rakk yaa xam nu mu toll ni gaa yu baaxee daa doxee sëñ Mor Jaara ka kàngam ya joxe farata yàlla ji ba noppi nag def teg ci loo xam ne moo ëpp la leen borom bi digaloon waaye dañoo wëlërante moom kon yokkoon nga xam ne ne ne ne ne kon ñu bari ci noonu ñu ngi yàq seeni waxtu ci loo xam ne du jag mukk feeg la war jégut li la war feeg jégut feeg noppi woo ca lu ñu sopp ak lu rafet ci xel ak lu mën di doon du mën a jeg mukk feeg li war li borom bi rëdd ne lii daa war feeg noppi woo ca leneen mënut mënut mënut a baax yu yu yu am solo la am solo gone yu bari seeni at bariwut seen xam-xam bariwut ci doxee na mag ña ndax seeni baay sax gone la ay gone lañ koo xam ne sa sa baay gone la sa maam sax daanaka gone la sa maam bo bu dee xawli mag it tooge wutoon ak mag ya mag ña duggutoon ci seen biir te nuñ binduñu bindaguñu la ëpp ci ca ca sun doona yaa naaw na ma nga ca armée bi kon kooku moom la la muy xam ci dëgg gu gu leer naññ ak ay néew ak ay néew kon kay xanaa delluwaat ca téere bu mag ba muy alxuraan de de demal ci suratu nisaa yi demal ci suratu noor foo ca dem rek mu wax la doxin ya doxin ya nga dem ca ca taarixu gaa yu baax ya yooyu ñuy ne nettali ca téere yu suufiyanke ya nga xam ne ñooñu ñooñu ñooñu ñu farloo lañu woon ci moytu lor laa darara wala daraam bul loru bul lore kooku kooku ñoom ci lañ ci lañ nekkoon ñoom ñoom sax dañoo demoon sax ba lor ñoom ne ginnaaw lor moom jombut ngir bañ a lore moo gën a wóor lore ngir bañ a loru kon ñoom sax dañ toggoo lor ak lor ngir bañ a lore la gënoon nag mooy ne ci digg bi bañ a loru bañ a lore waaye waaye boo ko mënul nag nga nga daal di fii woog loro ja yow te mucc ca loro ja kon jigéen du ko ñuy liggéeyloo rek mooy koo xam ne danga koo def ni ab sareet rek di ci sa teg say bagage waaye déedéet ku tedd la dund ngi jigéen ji moom it mu xam ne góor gi naw la rek la mu tedd moom it kenn ku ne di jaamu yàlla ca morom ja xëj ma su borom moonu indi ci àdduna ñu yóotilante aadama ak xawa alayhim assalaam ñu yóotilante bu doon aadama képp fi ne kon àdduna mel na ne cim xel kon du neex xawa rek bu fi nekkoon mel na ne cim xel àdduna du neex bu amee bu fa ñaari aadama rek ne woon koy day mel na cim xel àdduna du neex bu fa ñaari xawaa rek nekkoon cim xel day mel ne àdduna du neex ndax plus ak moyen day mel ne plus képp ñaari plus du andi courant ñaari moyen day mel ne du andi courant ñu suñu borom andil ñu plus ak moyen plus ak moyen mooy góor ak jigéen mu ci la courant di juddoo dund gi daal di neex yu bari juddoo ci wuute gi ñu wuute wuute bu amutoon kon fu fu nuy jaar ba mën a am ay bant ami doom kon dana jafe ndax day mel ne kon day mel ne kon nit du ko yittewoo su borom daal ñu indil ko courant plus ak moyen courant judd kenn ku nekk yitewoo sa moroom kenn ku nekk boo sonnee sa moroom di sa dalwaay kon kon waaye jigéen da ku jigéen di kon moom war naa war naa set tuuti ci biir ak bitti war a war a war a war a war a jiima ba xel ba xam loolu la góor gi bëgg góor gi it war naa seet wut ci biir bitti war a jéema xool ba xam loolu lu jigéen jigéen yi bëgg lépp nag ci ni ko lislaam rëdd maa ngi seetlu rek loo xam ne amoon na te léegi day mel ne gisatuma ko ci jigéen ñi mooy parfum gëtt yi amoon na gëtt yoo xam ne gëttu gëtt jigéen la mooy gëtt gu woyof toy xet ga woyof bu mosaa di dox ci mbedd yi sax bu jigéen jaaroon fenn ba jàll nga jaar fa da ngay xam ne fii jigéen jaar na fi nga xam ne gët lay doon nga woyof gu sell gu neex bu dee ca góor nga gëtt gu diis gan nga xam ne foo jaar te te góor jaar na nga xam ne fii de góor góor jaar na fi ndax gëtt gi neex na waaye dafa tal dafa dafa tal nga xam ne day mel ne jigéen li mu bëgg ci góor mooy noona tal googu dis googu góor li mu bëgg ci jigéen mooy nooy googe woyof googe waaw lu mu gën a woyof rek góor gi gën koo neex ci jigéen jigéen ja bu jigéen ja doxeenu jigéen jigéen ja doxeen wa bu góoree góor dutu ko baxal jigéen góor bu doxeen wa jigéenee jigéen dutu ko baxal nga xam ne kon waroo googu moo moo indi moo indi alxinaa ul fanni yi daa koy tuddee nga xam ne mooy mooy mooy aar bi bu taaru boobu aar aar boobu nga xam ne ba di lay doon day taaru lool ba jéggi dayoo ba jéggi dayoo damaa masa bi ma nekkee ngaay mexe lu am solo gandi ko gu rafet ma jógee ca kër gi man nekkoon di jëm ca daara ji moom sax Modou Moussa ja suba teel ma ñëw ba ba jéggi raay bi seen am ñax ne fi ci raay bi mu xaw a gudd di tolloog wag gi nit ma seen jigéen jin joo xam ne ni muy ni muy ni muy doxee di génn tolloog ñax mi ba nag buy buy dox di yëg tund wi ni muy waroo ak ak ñax mi ca xartum bi mu sol xartum bi couleur yu yi mu am ak couleuru ñax mi ma xool yëngu bi yëngu bi muy yëngu ci dox bi jóge jóge fi fii ci xur bi jëm ci di yéeg tund wi ma gis xaraka boobu judd mu waroo ak ñax mi ñax mi it munta toxu te nit ki mën a toxu ànd ak colam googu kulóoram yi ak kulóoru ñax mi benn law xafan nii bu taaru dal di juddu ci man ma yéemu dama bégg bégg ci daal di waaxu dem àgge ci ci ci mudir ba ibnu ibnu amar ak seen ah ibnu amar te te gis naa daal kii lu lu lu jekk soxnaam soxnaam a ngi taxaw naa ma ah lu ma gis ma ne ko ma ne ko man daal bi may ñëw daal ba tolloog raay bi daal jënn jigéen di na naan fël noonu di yéeg tund wi xortum bi mu bi mu sol ak ñax mi ak yëngu boobu muy yëngu moom di toxu te ñoo xam ne mënut a toxu moom daal kiimaan la gis naa ci ab portrait bu rafet bu kiimaane soxna si naan ah kon jigéen ja daa rafet Ibn Omar ne ko déedéet jubluwut loola gis nga taar boobu de taar boobu waaye taar boo xam ne taar boo xam ne ñax mi ak jigéen ji colub jigéen ji ak couleur jigéen ji ak nit nit nit gi mu doon nit ci mën a yëngu maa taxu loolu moo jur portrait ba gis nga gis nga boobu boobu taar xam ne dama big mbig mu kiimtaane ne ne kiimtaane loola du jigéen moo ko def du ñax ma du couleur xartum ba du couleur ñax mi waaye lu composé wu la dialectique bi am ci diggante yooyu yëpp moo juddulu benn portrait bu rafet yooyu nag daal mel ni nun nun ab taar xam naa war nañ ko jàngale taar day mel ne day mel ne taar day mel ne jàngale nañ ko damaa mos a dem Louga a waxtaan Fallou Lo moom moom di waxtaan ci farawo sénér yooyu maa ngi koy nuyu fi ma toog ci jotaay bi ma seen soxna soo xam ne musóor gi ñaari musóor la musóor benn dafa bula benn bi weex bu weex bi jiitu bu bula bi tew ci te muy dafa ñuul kukk moom soxna si ma xool mu jëkk portrait bi ma gis dafa jekk ci man portrait bi dafa daal di woo soodat dafa ne ko man de gis naa jigéen joo xam ne ni mel ñetti couleur yi ñuul weex bu la ni mu tegaloo daal kéemtaan la portrait la bu portrait la man ci man bu jëkk nga xam ne nga xam ne noonu jàngale wu ñu daal xam naa taar nga ne kon kon soxna si solo ba jëkk ba jekk nga di ko xool nga solo ba jekk mu di la xool seen ñaari col yi seen ñaari melo yi jur portrait boo xam ne ci seen diggante lay ne dama masa jóge université ca Égypte yaakaar naa couvrir xubba booba laa ne ma ñëw ba jóg couvre bi mooy pont bi am marché ñooñu jaay ci ci kii ci wetu magasin yooyu ay fur yu ma seen ku tegale ku tegale fur bi ku tegale ku teg ab bidon ci dara bidon yi diw yu mag yi ñoo ko juwee mu mel lu mu jox ma portrait bu rafet ma si ma dox ab jéego muy ab bidon joxuma dara ba daal di dëppaat benn tànk bi jëm ginnaaw mu jox ma portrait bu rafet ma dikkaat ci sama një mu jubbi ma ne ah kon kon ndekete position bi ma taxawe moo jur ndekete portrait bi bi ma gis kon ndekete portrait ci ci taar li koy jur mooy dialectique bi am diggante yow ak ak la ngay xool muy am solo nga xam ne ne noonu noonu buñ leen buñ leen andi aw aw aw ñam daa lañ ko def jëkkoon sama ndey ku ku fonkoon torsion ci moom laa ko jëkk gisee musuwaar yoo xam ne koy andi ba ca ndaar leen sama bàyyi la da ko daal jël ab torsion bu noppee ba ba ba teg pot bi ci këpp ko ci palaat bi bi bi kibéer gi jël torsion muur ca nga xam ne pëndëg dara weñ bi ko laaw nga xam ne kon torsion yi dañ ci daa dañ ci daa xob tuuti gët gu woyof loo xam ne boo demee bay bay bay fomp bu la jegee nga xet ga neex lool ci yow danaa gis sama bàyyi it daa raxasoo saabu yi naa ko saabu yu kii woon ñaan ko pël amoon na pël ma lii fa yeneen yeneen sa saabu yu yu ndaw lay daal doon ba nag pëkk gëtt gunu neex a neex lay xeeñ sama bàyyi bu masaa di raxasu xob xobal xobal xobal daal di fóon fóon loxo bi ak saabu bi da da daal di mooñ ndax xam naa ko xamoon yooyu la ah ku ku mënoon na toppatoo ay parfum yu yu sell sell yu sell waaye nag moom parfum bu dee alal ju foor lu mu joxam mooy denc joxe ko addiya loolu xam na moom la la ndaalul biir rajo moo moo ko sama loolu xam naa kon mi ko kon xam naa daal xam naa nga xam ni kon day mel ni kon la nga nar a demee ca ca kuréel yàq nangam yi nga toogee ko sa kër toogee ko sa kër sa sa soxna di la wéttilikoo nga di ko wéttilikoo am na lu aada ju ju ju ma doon gis ci réew mi aada yi dem dibiteer dibiteer yi nga xam ne da sa sa sa kër da da nga fay bàyyi reer bu ñàkk solo mbaxal moo xam ne kat gi rek mara digital yi ñàkk solo daal di toog ñalam ñalam daal di baax na man kat dama kii daal di kii daal di suul sa mbubb daal ne man kat ma gént ñëw ñëpp xam ne da ngay dem dibiti dibiti réew oh man day on daa xool ne lu lu ma mas a lu ma an jigéen ñi toppatoo leen ñam yi ndax man lu ma xool ba nar koo jëndee ji bi sama xel sama yaram de day daw mu ne ah xanaa bu ma ci doole woon nangam yóbbu ko ci kër gi la kon kon ñu mën a soppi kin la kon kon ginnaaw man mënuma jëfandikoo de dem jënd nangam ci ab xaalis ngir man képp bàyyi kër ga kon nag yéen kon dé déedéet ma baxeel ci loolu nga xam ne gis nga loolu góor gi baxal jigéen ji jigéen ji baxal góor gi dund gi neex ndax dund gi mën a neex de waaw rawatina suñu réew mi suñu aada yu tedd yi dund gu mën a neex la gu mën a neex la xanaa xanaa buñ ci génnee àndandoo yi àndandoo yi dem dem sol sa soro ba jekk na njóggu dem ci dem ci ay day yiraaki nangam ak kuréel di yëkkati xasida yi sëñ Bamba yi jàpp ne loola waaw da nga def de baax na waaye da ngaa julligul timis de julli ko timis asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatuh